salaamaaleykum mbokk leeral point net mbokk leeral TV ginnaaw ba gouvernement bi waxee day jàkkaarloog taskatu xibaar yi chaque quatorze jours si liñ jëlee suñu micro jokkoo askan bi di yeewu Sénégal ñu wax ñu ban jàngat lañ ci am ak ban gis-gis lañ ak lan la ñuy xaar si jàkkaarloo entre gouvernement bi ak taskatu xibaar bi. gouvernement bi njiit bi dañ gouvernement bi dañu chaque dañu jàkkaar jàkkaarloo taskatu xibaar bi loolu ban jàngat nga si am. ah nañu doxal lu doxal réew mi rek wutal zone yi liggéey. loolu moo am importance mais comme lu ñuy def nii loolu amul benn importance mais dañuy xool seen intérêt rek la doxal instant yi ku nekk rek sa intérêt ngay xool waaw mais dañu war a xool zone yi dee ci biir géej bi yooyu ñu wutal leen liggéey loolu moom moo gën a am waaw mais bu ñu deful loolu moom seen intérêt kese la ñuy doxal instant yi waaw. ñitu réew bi dañ ne chaque quatorze jours dañu jàkkaarloo taskat xibaar loolu man jàngat nga si am ak lan nga si yaakaar. non man gisuma ci benn développement boo xam ne dinaa ko ci gis loo xam ne lu ñuy jëmale kanam la non du ma ko ci gis. ndax euh, soo xoolee noonu daal maanaam njiitu réew moom moom lañ fi teg teguñu fi ñi nga xamante ni moom la bëgg ñu boo ñu jàkkaarloo ak taskati xibaar yi chaque 15 jours ñooñu teguñu leen fi ñun njiitu réew bi lañ fi teg moom lañ yaakaar pour mu jëmale réew bi kanam kon man maanaam ñun lin maanaam daal ñun njiit réew bi leen gis leen yaakaar ci moom lépp gisuñu ci dara lépp naxee mbaay la ñun moom gisuñu ci dara sama gëraa bi euh, euh, njiitu réew bi dañ ne chaque quatorze jours dañuy jàkkaarloo li ñu mel taskatu xibaar loolu lan lan nga si lan ban jàngat nga si am. di di ko rafetlu rek bu dee dañuy jàkkaarloog taskatu xabaar yi dañ koy rafetlu parce que xëy na taskatu xabaar yi ñooy jotali euh, nit ñi pour ñu xam liy xew ci dëkk bi ma di leen yóbbante nag yéen taskatu xabaar yi ne leen comme immigré yaa ngi dem fu ne. nañu fexe tu wutal ouvrier yi ay place ñu am fu ñuy liggéey parce que nit bu amee fu muy liggéey am lu mu yóbbu këram bu boobaa du jar muy dugg ci ay gaal mais dañuy nekk ci ay palace ba am yaakaar ay nit fekk leen foofu jëlee leen foofu ne fii ñoo ko moom te loolu rafetul message boobu nag laa leen di yóbbante yéen taskatu xibaar yi nga xam ne da ngeen war a jàkkaarloog état bi. man daal fi mu toll nii leen yóbbante mooy njiit réew bi li bëgg mooy emploi des jeunes ndax fi mu toll nii réew mi yaakaar naa li fi nekk ñëpp gisandoo nañ ko waaw ndax euh, gis na immigration clandestine bi gis na ni mu demee lépp li ko waral rek yaakaar naa ne tey ji mooy ñàkk liggéey moo ko waral quoi man sama gis tey ji bu état bi defee li war a def pour man euh, ah dina am ñoo xam ne nii gëm naa ne dinañ toog quoi parce que nit ki bu amee si lu mu jàpp rek xam nga yaakaar naa xelam dina xaw a dal tuuti daal waaw bëggoon naa nañu jàppale jeunes yi bu baax a baax a baax si lu ñu nekk nii quoi waaw parce que ay jàmbaar laa fi gis quoi. mbokk leeral TV mbokk leeral point net ginnaaw bu ñu jëlee suñu micro tàttaan ko askan bi. di yeewoo fii Sénégal nee nañu nag lu ñuy xaar si tase bi entre gouvernement bi ak tàggatu xibaar yi wàllum immigration clandestine bi ak wàllum xëy ñu leen jox dig daje si beneen micro trottoir sur Leral TV leeral point net nga ànd seeg Sada Anne journaliste du peuple.